foog sénégalais yi ñoo setaan yéen ñëpp ngeen bàyyi ci xel on va parler à nos confrères de de la presse Socé Ndiaye. une mhm. fois de plus. sans prétention mais sañ nañu ko Pape Sarr critique ak suñu yeneen bokk yëpp Daouda Thiam. Mhm. Cheikh Omar Ndaw ak ñeneen ñëpp kilifa yu baax yooyu yëpp da leen di wax benn affaire. ak ñoom Mamadou Wan enquête Cheikh Kouyaté ak ña sa des yéen ñëpp la noo waxal sunu ay am di jàmm ngeen sañ nañu ko ni leen kaa waxee ni leen koy wax ci bët ak bët sekk nañu ko. Mm-hmm. bokk nañu jaar jaar. Mm-hmm. dama ni cette titraille là réflexion sur 2024 et vigilance à l'Assemblée aucun journal de la presse privée entre 2009 et 2012 ne titrait comme ça. ci jamonoy ab Wade kenn daawul wax Ablaye Wade et le troisième mandat en nangam nangam di ko sol suñu xel à la place ci jamono bi biñ ci tollee entre 2009 2012 vous mettiez le président Sall à la une vous mettiez l'opposition à la une Moustapha Niass wala Ousmane Tanor Dieng yàlla ki yàlla yërëm wala keneen ak keneen qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ñu bëgg a jël la donne parce que ça c'est le mettre dans notre subconscient c'est dire aux Sénégalais acceptez ça lii principe la non avenu waruñu ko nangu mais la presse une fois de plus sans prétention et humblement les gars c'est entre nous dama ne lii waru leen titrer nii réflexion sur 2024 du wax warut a nekk warut a nekk on a tiré sur un opposant ci loo xam ne du yoon vous pouvez pas titrer sur cela amul problème mais bu loon ñu forcer lii arrêtez ça gars yi nan waxante dëgg te yàlla tax merci. <laughs> waaw mais <coughs> ñu ne ñoom de. secrétariat exécutif national APR dañ doon daje. Mm-hmm. waaw. réflexion sur 2000 vigilance à l'Assemblée vigilance par rapport à quoi. ah taxawaay nee nañ de fii entre autres. non je veux dire je veux dire qui doit être vigilant. qui qui. ah normalement xanaa ki yilif ki yilif ki yilif. xanaa xanaa ki ki yilif ki yilif ki jiite assemblée nationale. waaw léegi moom bu fekkee quel intérêt ñun suñu intérêt lan la ci même même s'il ne le dit pas tout le mm-hmm. monde sait que il surveille l'Assemblée nationale ah, même si même si ne le dit pas léegi loolu en quoi ça concernerait le pëpp le sénégalais lambda moom mi am intere ci mbir yi kay moo war a vigilant à l'Assemblée nationale mm-hmm. wala boo xëy na journal bi moom lay wax ah kaay nag booy ñun dañoo jàng journalisme nag <laughs> dañ koo jàng bay suñu këyit <laughs> toog na fi rek di wax yéenekaay bi nee na jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk Benno fare Mbirkilaan ñoo wax ne daal troisième mandat jëm ci président Macky Sall ñoom dafa dañ ne daal daal mbir moomu daal maanaam seen demande daal du ma ne demande waaye ñoom. ñoom ñooma. waaw koy bàyyi ñoom ñoo daal bëgg nañ président Macky Sall daal mu dem candid mu dem candidaté pour 2024. koy bàyyi waaw j'ai jigéen ñi dëkk Mbirkilaan fare ca Benno Bokk Yaakaar. ñoo xëy ne ñooy réclamer la candidature. voilà ñoom ñoo ne Gossas. Hmm. Gossas waaw. Pape Sarr tu permettras c'est le directeur de publication de de de Critique je pense bien que moom la ba tey sama xarit boobu euh, en 2000 tu tu étais avec nous au Populaire tu tu tu mais benn instant foofu mu waxante. waaw réew mi nu gënal na ku nekk sa waay. Hmm. xoolal journal bi. réflexion sur 2024 et vigilance à l'Assemblée. waaw ouais. c'est en faveur du camp du pouvoir. Moustapha Ba décline les défis ci côté appel ak marché fële. waaw ah, mooy ministre des finances Moustapha Ba ministre budget. Ah, c'est toujours le pouvoir à la une du journal. waaw mun na eh, ne jure que pour Macky Sall. waaw c'est à faveur du pouvoir tu as manchette appel xulil. Racine Talla tout le journal à la une les gars nom de Dieu arrêtez ça moomu leen nit yi arrêtez de nous enquiquiner à un moment donné on ne peut pas dëkk bi dafa toll foo xam ni sénégalais yi hôpital Dantec. ñi ñu fa jëlee tëj hôpital bi ñu ngi dee mënu leen comprendre ñaata sénégalais ñooy dee semaine bi ak ya ca des on en sait il a tellement de choses à dire vous prenez la une d'un journal toute la une c'est qui le pouvoir psychologiquement vous travaillez les gens pourquoi vous pensez que dëkk bi da ngeen ko moom pour def benn groupuscule di lobbying pour jaxase ce pays là ça les gens ne vont pas l'accepter vous le faites on le dira et tous les jours yàlla ñu yàlla may fekkee barke Baye Laye Ali xalifa Ababacar ak Alaaji Fàll ak maam Baye maam bu contact de des sama kilifa yëpp billaahi wallaahi tallaahi tous les jours vous le direz yàlla tànk mu ngi nii may ba kenn ko wax mais arrêtez ça parce que avant président Macky Sall di fi nekk ñun ñëpp ñoo doon bokk ñoo bokk nekk vous tous journalistes vous ne parliez pas comme ça il faut arrêter ça c'est pas sérieux tous les journaux ñoom ñëpp vous tirez titrez sur ça Ousmane Sonko c'est jour parce que bañ ca tolloo ñu def ko Macky Sall c'était la une bañ ca tolloo ñu def ko Moustapha Niasse c'était la une Ousmane Tanor ak keneen ak keneen pourquoi aujourd'hui ça change à ce point lan la lan la le Sénégalais et les Sénégalais ne méritent pas ça nañ arrêté lii waay. mais que ma ma ma moi j'avais pas la remarque <clears throat> j'avais pas fait la remarque mais une bi yëpp en fait c'est le le pouvoir en fait bon je sais pas mais c'est c'est une remarque c'est une remarque et je vois que affaire Ousmane Sonko bi c'est en rouge ci benn ci benn euh, ah, espace bu alors que booy xool actualité politique c'est l'actualité phare tu as quatre images quatre photos c'est l'actualité dominante Moutagassi Racine Talla Macky Sall c'est l'actualité dominante dites-moi si c'est du journalisme sans prétention c'est l'actualité politique dominante bon bon bref sa waay tey meewu gaynde la ndekkee quoi il faut le comprendre mais mais remarque mais quand même lii moom kenn kenn mun ta wax ba kenn du am remarque bi moom que c'est le grand c'est le c'est le pouvoir qui est à la une aujourd'hui ci critique mu ngi nii mm. au même moment politiquement parlant il y a une actualité dominante phare gis nga fañ ko def nemmeeku tour Ousmane Sonko recadre ses sauvageons d'abord moi j'ai des problèmes et le terme j'ai des problèmes si si yenn terminologie yi ñu koy utiliser ci presse bi. c'est dégueulasse ça. c'est sauvageon. c'est dégueulasse mais et c'est sauvageon. waaw avec OONS. et puis entre guillemets. c'était comme si c'était. ouais c'est une insulte donc. bon moi man man moom amu benn leçon ma leen di jox mais daal remarque bi mu ax ni man loolu laa def waa waa pouvoir bi tey ñoo nekk à la une. Mhm. et ils ont pratiquement dafa mel dañu zappé. l' politique qui qui concerne Ousmane Sonko. effectivement ñu dem ci beneen yéenekaay. Mhm.